allo waaw. champion ci loo nekk. maa ngi lay déglu si waat. yaa ngi ci jàmm. maa da ngay nelaw wala da ngaa nekk saal. ah, ah boo tëdd nag tamit da jël sa téléphone wala nga sa taal wala nga taal sa télé jàkkaarloo ak li TV. mooy ba nelaw. man ma ci nga entraîné amoo combat looy entraîné. doo noppal ah, saison man ci liggéey bi xaar moo ah, gën de parce que xam naa ni adversaire yi ngay toog ci plateau yi di leen tudd moom entraînement rek moo la war ndax ñooñu ñooñu dañu garaaw waa parcelle ah, loolu loolu laa waa parcelle waa parcelle benn adversaire nga fa muy kan muy kan ak Modou Lo ak Modou Lo hmm. am nga fa ñetti adversaire wala ñeent ak rakkam. góor a soog. Mhm. mu ngi nii toog ci plateau bi nga naan ñaar wala ñett. maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax. waaw. Ah. bu baax waaw kii. Mhm. <laughs> waaw. non góor sa góor sa góor la seet dama la seetaan nga ne fay nañ ko treize millions góor nee na li ñu ko fay xamoo ci dara te du yow yaa ko wax ni mu bëri. dafa des làmb ñëpp ay xaral lañ xamante ne suñu biir bu baax a baax fekkee làmb moo ñu tax a jug làmb nekk suñu kañ nekk suñu métier même boo même boo bëree cinq millions sax ñu fay la sept wala huit war nga mu mu dégg góor góor góor yow góor yow ba ngay bëri ñu bëri bu fekkee affaire mbooloo ñun ëpp ñu mbooloo dalal jàmm rek ba ci phase bi moo neex loo seetlu ñu bëri ñett kenn di bëri bëgg nga bëri da ngay mënoo moo def moo gën. non man man yaa may bëri loolu may wax li may bëree man. waaw du du musique rek mbër lool ñu est-ce que ba exclusif lañu da si yoon lamb gëj fee na temps bi xaarul kenn man sax moo bëri ak yow amuloo benn rendement encore une fois. ah bëri góor soo amuloo la rendement góor soo non non non parce que. kon man bëgg bëreeg yow amul sax quoi. non sax koo bëreeg man man bëgg bëreeg yow. ay na moom moom du jaarukaay du yoonukaay mel comme si moom doo ko mën a dal la affaire gëree la mbër. champion nga mbër Serigne bëggoo bëreeg man man mi bëgguma bëreeg yow de. nga ne. bëggoo bëreeg man man mi bëgguma bëreeg yow de. waaw ok waaw ok mais mais mais dox suñu combat man ak yow. bu ñu bu ñu bëree. non bu ñu waxoon doxee bu doon bëgg a bëreeg man yow kay waxal bëgg a bëreeg man rek. ku la fay loolu. nga ne 25 la laaj. ay 25 ay 20 millions la laaj ku koy fay. xanaa Baye. Baye man. Baye wala Mansour Ba. ne ko association bi nañ ko fay association bi. nee na sa nee na nga yor benn association. ngeen ngeen tëgg ko. mu ne. nee na sa association bi. association man. bi Tafa Gueye jiite. moom kay moom ñoom euh, ñoo koy si jamono si ak kay ñoo koy yor kay ñoom kay nañu li combat ko bëggoon. ah ñu tëgg na ko jàmbaar tëgg loolu nga bëgg. waaw da nga jàmbaar tëgg kay bu fekkee moom bëgg na la metti. ne ko jàmbaar bu ñu ko bëggoon ko leeral ne ko mën a association bi rek la rek li ñu bëgg. laa ilaha illallah mais est-ce que xam nga Gora Sock ay ndaanan kese daan. non man dama ko nangu champion macha allah parce que même bu dara Gora Sock moo jur si làmb. Hmm? est day ay mboqot ñu woon ay hmm. mu dee da ngay wax da ngay wax di wax lu mu def. comprendre hmm, waaw. mais tamit nag bu bëri ay liggéey ay ndaw lañ temps boo toog yi def bu la fay ay millions nga war a bëree da ngay bëree. nga toog bëri woo pertement la nga bind association ay tafaag yi di góor et droit ay waxu tàppale rek. rek ay waxu ragal lay wax rek. dafa daan Cobra daan jëm téere. waaye moom ñaar mi la bëri Cobra vingt cinq minutes moo ah, nga la xam nga seconde la ko daan. ne ko laaj wax maa moom fi ñu ah, ah? ma daan mooy Cobra bi fi ñëpp bàyyi bu ñu ñëpp ko fi ma jox ko daan ko si seconde. ne ko moom koy daan toog te te te dama daanee comprendre ay seconde mais mais mais yow mais mais sax yow yow li na nga na nga mën a tegee moo gën a Serigne Ndiaye numéro 2. Eh, loo eh, loolu la wax. waaw. loolu. yow dañu la mën a fay Serigne Ndiaye la mën a fay si Mambala. Mambala ngi nii mi ngi lay dégg de Mambala ngi lay dégg de yow tamit non mais loolu mooy dama dama ne la li mu fay Serigne Ndiaye ko fay si Mamba la loolu mu nekk. maam. Hmm. donc man moom dañuy fay dañuy fay góor man moom loolu moom kase boppam. moom moom sama dëgg mais mais mais yow daal pare nga pour bëreeg a fi nekkal xamante ne man làmb laa fi nekk góor soog champion la kenn mën ko mën ci àdduna champion la mbër la man làmb laa fi nekkal mooy damay liggéey léegi temps muy temps méthode xaar aw ma ko ku ma làmb boole damay bëreeg yow daan la seet protection Hmm. ma fi si loolu laa toll ma toll ma fi jël ay damay taamook ay di gos ak ay droit duru fi génn dama jël xaalis dugal sama poche bëre daan dam seet leneen mun loolu ak hmm, a de nee amagoo adversaire de taille bu mel ni moom de loolu loolu du ay wax loolu du ay wax nga koy jël nga firndeel nga wane ko mu gën ànd leen xam loolu lamb jiwoon di bëri de fayee la xaalis jëlal li fay nga jël nga bëri mënoo jël li nga fay nga dem xool ki ko nooy koo dem ko nga bari moom moo gën. Hmm. dara ko yomb la saay. waaye la mais mais moo nekk si nekk si ruqu saa yi naan naan naan ay non ay association ay yu yoo xam te ko doon jël saay dem bëri te kenn du la fay nga dee Serigne Ndiaye dama wala doo moom doo xam. boobu la la. doy na waar kan taa taa xaaru kenn saay li la mun fay Serigne Ndiaye mu fay fenn temps maa ngi dem. koo fi koo kenn koo jël tamit du doom xaalis. ci yow rek la mën a amee xaalis. barke sëñ Tuubaa Mbàkke. ah. Serigne Ndiaye ngay bëree nga am xaalis am coow làmb ji neex xamante ñëw mais keneen koo bëreel saa yi dégg nga ne ay wéccin lay jox wéccin. dafa am coow. te te lam na lam na ba tuuti xanaa xaalis mu dox saa yi. góor a coow. ndax coow kay ma jël maam Balla maam Balla nee bu doon rek maam Balla lay bëreel. waaye yow góor sax góor sax xamante mu xam ne quoi vraiment xamante mu nee na wala Gris Bordeaux. non góor sax xamante ma ko xamante ma ko. Hmm. waaw góor sax xamante ma ko vraiment. dun xam xam xam ndax góor sax boo boo boo Mamba la champion la macha allah c'est le grand champion suñu grand la ñun ñëpp. Hmm. lu la si laam dem ci laam mais suñu borom moo xam ne ñu doxalee ay ay carrière te hmm. carrière Serigne Ndiaye bi suñu borom moo ko moo ko tracé tey ku gis Serigne Ndiaye am si moom yaakaar xam ne kii kat mënut mënutee laam gi suba. te ku bëri Serigne Ndiaye bi nga xam ne Serigne Ndiaye bi kat am nga combat boo yàqale fenn ci àdduna. kon yow góor bu amee am na bu mës am ci àdduna lii loolu man yow man yow góor sax mu bëree ak ma est-ce la. Ah, man kay maay laaj. mais yow amee nga. waaw mais laaj ko rek moom kay mi ngi lay dégg. laaj ko ñu mu ñu mu ñu mu dala bëri yëpp daa àgg ak man comme yàlla ak yaane bokkuñ dara. ah daan na jëm téeri de jëm téeri bi gaa yi mënuñu ko daan de. mais saa yi saa yi saa yi saa yi saa yi tamit góor sax bi ñaar ñaata lañ bokk même sax ay ay ay mbapat ñaar lañ bokk mbapat man ak moom. Hmm. ñaata yoon ngeen bëre. mbër mosuñu bëri mbapat ñaata lañ bokk mbapat man ak moom may téye gaa yi di leen dëpp di leen dëpp muy toog di xool. ah mais moom dëppoo ko. laaj ko laaj ko nga dëpp moom bu ñu bëree ma dëpp ko de. ah mosu leen bëree mbapat nee na. non mosu bëree bu bëree ma dëpp ko jox ay mbokkam. waaw kon baax na kon baax na promoteur yi promoteur yi ñu ngi leen di dégg. mais góor a góor a góor a mosoo tàppale nag Guiane Mbaye bul dugg si affaire tàppale yooyu Guiane Mbaye góor a. góor a kon ñoo ko déggandoo kontaan naa ci yow. mais mais mais maa ngi jégalu encore une fois di baal wax ci koor gi di leen baal wax ñëpp waaye. jërëjëf. xaw ma jërëjëf yàlla defal ñun ñëpp incha allah. jërëjëf jërëjëf góor a Gora. Serigne Ndiaye bi waaw wax na ay waxam ba pare. waaw mooy li nga yow de ci la ñuy waxaat rek. man moom nekkuma ma. nag. non bu doon adversaire mu ko ma waxaale man mosuñu maa woo ci maam Balla ma ne bëreewu maa moom mosuñu maa woo ci Serigne Ndiaye ma ne bëreewu maa loolu moom eggaguñ dañuy bàyyi ba ne Gora Sock kat le premier le vingt wala nangam arbitre suuf la seen diggante. Mhm. deuxièmement Serigne Ndiaye du moom moo may wax lu may bëree du moom moo may wax bu mu bëree cinq mille wala dix mille ma war a doole cinq cent mille kooku moom la war a moom mooy boppam nga xam ne nit topp ko man booloo bëre may topp su may génn moom ñi koy topp bëriwul su bëree trois cent mille sax war na mën a bëree trois cent cinquante mille mën nañu ko doole cinquante mille bu bëri eh. waaw ndax kenn eh. topp ko góor yaa ngi minimiser kii di. non minimiser wu ma ko Serigne Ndiaye champion daf na ay performance yu bëri ci bëri simple. waaw ci bëri simple mbëri mbëri ci arène mbëri bëri daan ko ci arène. allo. asalaamaaleykum. salaam. Lamine maa ngi lay ziar sant ñi. sant ci loolu ne maa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm ju bëree bëri alhamdulilah. alhamdulilah naka coono yi. sant yàlla bu baax maa ngi lay nuyu di nuyu champion yooyu nekk ci plateau bi. waaw. voilà muy góor a soog ak champion yi fa toog yëpp maa ngi leen di nuyu di leen baalu àq ci weeru koor gi baal ñëpp. mais suba balaa ngay ñëw loolu yaay su bokk nga ci samay invité suba. les ah, spécialistes boo gisee ma woote xam nga man damay suivre sa émission yi en fait. waaw waaw waaw waaw. et dama dégg le grand champion Gora Sock. Mm-hmm. moom baat bu muy wax ba nga xam ne ba ñuy bëree ba léegi dama koy bañ di ko contester. Mm-hmm. et je l'ai clairement dit bu Gora Sock war na toog di toog man dama daan santa ndax lan làmb du am ñaari jël góor a soog dañoo bëri ma tëgg ko mbot ba bopp bi samp ak dënn bi ci suuf xam nga wala mm-hmm. dem di wàññi ñibbi arbi bi gaa yi téye ma ma ne leen damay ñibbi siisu parce que làmb du am ñaari jël et c'était très clair que dama daan góor a soog jël bu leer nañ moom war na dox di ruus di toog si plateau yi naan dama daan sanda làmb du am ñaari jël góor. te chaque jour moo ko bu bëggee mu ñëw ma joxaat ko revanche daanaat ko parce que dama ko man ñaari yoon sama làmb ak moom keroog daf ko wone loolu rek laa am pour par rapport moom li muy wax saa nekk parce que mosuma daan les jumeaux